dañuy wax ne li kulli maqaamin maqaal ndax wax dañuy wax ne ñett la ñett ñett ko war a wax li ngay wax ni nga koy waxe ak fi nga koy waxe kon day mel ne jataa bi li may bëgg wax mën naa ne lu génn jataa bi la waaye nag iteel gum ma ak ñor gum ñor ñëpp moo tax mënuma ko ñàkk wax ndax boo demee ci ibnu duraydin day wax ne lakinnaha نفحة مصدور إذا جاس اللغام من نواهي قمع أمن الله بو فيسي سبدن دك بو هجين دوغتاي ناك فني شائع عادي دفا باري تريوي نيو باري دوغ رواتنا كي يكت كادوم دوما كو تدو ناك خاص أبجول دوما كو تا دي نيو نيت بولا دفع آه، دي نيو وإن إذا كنت أكرم أكرمت الكريم ملكته وإن, وإن كنت أكرم أكرمت اللئيم تمرد كن أمنا سنكي لفق باحكو كدا فرين نتكو باح ديس غور بوغة ترى لي مونكو أفكا تشورنك بوغة ترى لي موشي موشي تيو أيمو ولا مفتر دم ولا لا نخ Euh, Serigne Touba li suñ suñu borom defal kenn mënu koo wàññi du ci wax du ci jëf du la ndax ñi ëppoon kattan di Touba bi fu ne jëm nañ fa jaar moom fu ne jëm nañ faa jaar moom mënuñ ci dara jëm nañoo jub ak moom booba it lam wax mooy fa in i'tazalukum fa lam yuqaatilukum wa alqaw ilaykum waaye nag wa in janaxoo li salmi fajnah waaye nag wa in lu ci ne moo ko kon Serigne Touba loolu moo doon tawqi am mooy bu ngeen defee la ngeen defoon ñu defaat dañ defoon kon noonu ko sëriñ mu Ka waxee ci biir mbind bi rek mooy la leen Serigne Touba léebu bañ demee boo ko delloo si ndax boo seetloo ci biir xasida yi nga xam ne euh, ci bahriyaat yi la da ngay dégg bu buy ñaan suñu borom delloo si ko Sénégal bi laa tax sabubin min nii lay wax taw bañ ko sabab kon Serigne Touba defu fa genn loo xam ne ak ñàkk fayda la mhm. def fa dara ko mën a jame def dara loo xam ne tubaab mën nañ ko nett li ginnaaw ndax lépp ñoom bind nañ ko muy lu leer nañ bind yëpp yéem sëñ Tuubaa ci jom ji ak fulla ji ak fit ak dëgër gi la ñuy def kon kooka tuuti na ci nit koo xam ne dafa toog fee waxtu ne muy xool li gën a ñaaw di ko teg ci deru sëñ Tuubaa te muy loo xam ne nit ñi mën nañ ko saafara seen seen bopp ci benn bis wala ñaari fan waaye nag jàmm bu amee cim réew day am lu koy sàmm. Mhm. ndax pas-pas bu toll noonu pas-pas yu toll noonu sax laay wax. Mhm. ndax yëmmaloo ko Sëriñ mhm. ko fooyee. ndax bu nit ñi jugee saafaral ko seen bopp. lu ne mën na ca juddoo. te loolu baaxu cim réew. kon moom itam na maandu. buy waxati na wax ci lam xam. na wax ci lam gëm te bàyyi ñi nga xam ne yoonam néew ci ñoom mu maandu ci ñoom. liñ mujj wax ci Sëriñ Tuubaa nag ba àgg ci di wax ne tubaab yi xamu nuñ ko nettalee sax ndax man diggu ma ko aw ma jotul di ko diglu. waaye liñ ma nettali ca nam ko waxee bëgguma jaar ci baat yi di ci juum waaye nam ko waxee demewut noonu Serigne Touba dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad la mu mm-hmm. wax ju leer nañ la ci koor gi mu fi mujj fekk Saxbaan mm-hmm. tàggooguma Ramadan nuyooguma mm-hmm. koo xam ne Saxbaan Ramadan ñoo lay ñoo lay nuyu nag ku àgg foofa sa digg sa borom euh, ci mbindeef di la wax rawatina ab tubaab te tubaab yi Serigne Touba xam ngeen ne mosu a nangul dara ci ci boppam bañ ko bëggee takkal médaille dafa gàntu bañ ko bëggee dem dem ba ci mujj gi ñu àgg ci ne dem nañ ba xam ne liñ jortoon ci ak liñ amoon liñ liñ bëggoon amut ndax gis nañ ne mboolem ñiy woote lu baax rawat na suufiyanke yi dañ dañuy dëddu àddina ne ci àll bi di lekk eh, ay xobi garab wala ñuy dëddu loolu bu amee àdduna kenn du ko dundal yow nag gis nañ ne lislaam ji ngay woote ñëpp danañ jub ñëpp danañ tegu ci yoon kenn du tooñ te nit ñi itam adduna si dana defar ndax nit ñi danañ liggéey kon nag dañ laa bëggoon a jiital ci liñ daa tudd AOF li xam ne France moo ko yilifoon nga jiital islam bi yëpp bañ ko waxee sëriñ bi sëriñ bi laaj leen ba xam lu ci seen xalaat ñooña mag ñi rafetlu ko ne ko ah loolu de xanaa mbégte la ndax eh, ñoom de ndegam ñoo jortoon ci yow daal dem ba wëlbatikuwaat wax ne dañ laa bëgg a loolu dana am solo ndax eh, ñoom buñ xasee ba jiital la dañ ci forcé ñëpp Sëriñ Tuubaa nee loolu nag laay bañ ndax yéen ñi ànd ak man de lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi xam nga loolu lu ko waral dangeen ngeen ànd ak man ngir yàlla ci seen coobare ñoom nag lañ bëgg bu amee ku ci ànd ak man du doon du doon seen coobare force lay doon. te laa ikraha fi diini daan te inil kaafiruuna illa fi xurur nee ñi wedd yàlla luñ la wax rek ay wor lañ ca nar kon Sëñ Tuubaa mbiram wees na loolu kon kuy wax na wax ca la nga gëm wax ca dam xam koo xam ne gëmoo tasawuf nga yem ca la nga ndax ñun amuñ jotug di tontonte loolu nit day nekk ci lam nekk gëm lam gëm te xam ne loolu jëm nañ ko ay ay ay fukki at ay fukki fukki at saa suñ xëyee luñ gën a wax ci Sëñ Tuubaa lu ñaaw nit ñi seen positif di gën a wér ci Sëñ Tuubaa seenu doogu ci di gën a dëggu seen seenu eh, jaayante ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu kon loolu jëru sa xalaat ku am jot sax mooy nekk ci den digloo ka jéem a xool ca eh, la ñuy wax ndax loolu amul solo man man de bu ma ñëpp toppoon ñëpp day noppalu ndax du ma ko dégg du ma ko diglu te kenn du ma ko wax lu ma ci dégg rek ci jotaay laa ko déggee. te bu mu amee sa bu bu ma àndee sama sama sama coobari du ma ko dégg loolu kon na ci na ko ñëpp xamee noonu am murit nag day am fulla wormaal ñam ñam bokkul xalaat te ne ci yam Tuubaa yem ci eh, mel na Cheikh Abdoul Ahad wax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon nee woon na am murid day mel ne ëkk mel ne xobu garab nee na xobu garab ngelaw lu jug yóbbaale ko waaye xob ngelaw la ko dugal ca pax ma ne génn waat ko ca ñun foofu lañ nekk. Sëriñ Tuubaa rek lañ dégmal xoolu neneen te xam nañ ne itam li fi suñu pësteef mi ngi wér suñ digg ak Sëriñ Tuubaa suñu digg ak Sëriñ Tuubaa di di wér di sell muy dëgg muy lu dëggul ci ñun lépp luñ yuutu danañ ko jot lépp luñ luñ dégmal danañ ko daal ndax loolu ci liñ wees lépp dund nañ ko ci te Sëriñ Tuubaa wane na ko te Sëriñ Tuubaa mbiram saa su xëyee day gën a jag di gën a baax di gën a defaru loolu nag mbirum suñu borom la ndax yuridun an yutfiu noor allahi bi afwahim loolu wa yaaballaahu ak uh, wallahu mutimu nooruhu walaw kariha alkafirun kon neexu leen waaye mënuñ ci dara saa suñ xëyee di gën a jéem a naxal mbirum suñ Tuubaa dañuy mel ne kuy kuy suul kuy ker loo gën a jal mu gën a yëkkati ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu